sëriñ saaliw loo sëriñ saaliw mi ngi gane àdduna ci atum 1902 ci dëkk bu ñuy wax ndaam gu rëy nekk ci suuf si di njàmbur ci région de Louga sëriñ saaliw doomu sëriñ moor absa loo la ak ku ñuy wax soxna xadi jóob moom sëriñ saaliw am na ñu bokkal soxna xadi jóob mi ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna yaasin loo bintu soxna xadi jóob bintu sëriñ moor absa loo ak ku ñuy wax soxna abi bintu soxna xadi jóob bintu sëriñ moor absa loo ak ku ñuy wax soxna ummi bintu soxna Khady Diop bintu Serigne Mor Absa Lo kon ñett ñu jigéen la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñeent laata ñuy xuus ci mbirum Serigne Saliou loo ñu nettali leen tuuti rek ci ay jalooreem ci laata muy feeñ jamono xam ngeen ne waajuram Serigne Mor Absa Lo ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki Serigne tuba Seexul Xaddim la bokkoon mu bokkoon itam ci ñu njëkkoon a jaayante ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor laataa ko baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim di bàyyi ko foofu ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor waajuram di Serigne sëriñ tubaa seexul xaddim ci bi muy gor si dëkk bu sell bi di daaru salaam ba tax na itam ci magum murid yi la bokk sëriñ saaliyu loo waajuram sëriñ moor absa loo ba tax na bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi ci atum 1895 ci ñëm fi bàyyi woon ci la bokk xam ngeen ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi muy dem ci géej gi mag ñi ci ñetti pàcc la leen seddale woon ñenn ñi mu jébbaloon leen maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru miy rakkam ñenn ñi mu jébbal leen sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke xabbaan mi bokk bokkoon ci jëwriñam yu mag yi yeneen mag ñi mu waxoon leen ñu delluwaat ci seen dëkki cosaan te toog fa di wéye nag lépp luy ndigalam dem jaarale ko ci kim fi bàyyi mu dénk ko yoon wi di maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Mor Absa Lo nag ci ñim yebaloon ñu delluwaat ci seen dëkki cosaan yooyu ci la bokk booba sëriñ Mor Absa Lo mi ngi ci ndaam gu rëy foofu la xaar ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ba mu ñibbisi ci géej gi ci atu 1902 ginnaaw bu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñibbisee ci géej gi ci atu 1902 sëriñ ak moom ci dëkk bi di Louga loo laataa Serigne Touba Seexul Xaddim di ñëw ci Sànnoosi ginnaaw bu ñu nuyoo saafonte ci gëjë gisee guñ gëjë gisee ci diggante sëriñ ak taalibeem ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim laaj na ko ana saaliw loo Serigne moor Absa Lo di ko wax ne ma nga fa ginnaaw bi ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim jóge ci dëkk boobu di Louga loo ñëw bari jàmm siisee jóge fa ñëw si Serigne Mor Absa Lo fekkaat na ko fa Serigne Touba Seexul Xaddim jooju nag kii di sëriñ moor sa loo doomam ji di sëriñ saaliw loo feeñagul jamono sëriñ moor absa loo dafa yaakaaroon ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim magu sëriñ saaliw loo boobu tudd sëriñ moodu faaloo la koy laaj moo tax heure bu ne ko ana mu ne ko ma nga ndax mag ñi doyloo woon nañ ku baax ki tubaa seexul xaddim doyloo goo xam ni kum leen laaj rek ñu ne ko ma nga ndax dañuy jort ne kooka rek la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di laaj bi ko seexul xaddim di laaj sëriñ saaliw loo boobu sëriñ saaliw loo feeñagul jamono kon nag day foog ne magu sëriñ saaliwu loo boobu nekk ci kër ga di sëriñ moodu faaloo la koy laaj moo tax heure bu nee ko ana saaliwu loo mu ne ko ma nga fa ci ñetteelu yoonu sëriñ moor absa loo bi muy ziyaar ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ca booba nag la koy xabaar si waale di ko wax ne kii di soxna xadi jóob de am na gan ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di ko xamal ne soo demee nga tudde ko saaliwu loo kooku mooy saaliwu loo mi ma la doon laaj fan yi yépp wala ci jamono ji jépp kon jëmm ji ñu waxtaane di sëriñ saaliwu loo laataa muy feeñ jamono ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim laaj na ko waajuram lu tolloo ñaari yoon ci ñetteelu yoon ba lay doog a feeñ jamono sëriñ tubaa seexul xaddim wax ne nañ ko tudde saalihu loo mu ganee àdduna ci atu 1902 ci bi sëriñ tubaa seexul xaddim jógee ci géej gi ci dëkk boobu di ndaam gu rëy sëriñ saalihu loo bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ moor absa loo moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal ku ñuy wax sëriñ moodu kodd jóob sëriñ moodu kodd jóob moomu bind lii di kaamil bi ginnaaw sëriñ moodu kodd jóob nag yóbbu na ko nag ci dëkk bu ñuy wax ñoom ñomre ci sëriñ maxtaar bintaloo ngir mu eggalee fa njàngum xam-xamam ak alxuraanam ginnaaw ñoom ñomre ci sëriñ maxtaar bintaloo nag la delsiwaat ndaam nekk nag ci loxoy waajuram sëriñ moor absaloo ba ni sëriñ moor absaloo ñëwee njaareem ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim mu indaale ak njabootam jébbal nag sëriñ saaliw loo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim dëkk boobu di njaareem sëriñ saaliw ak ñett mu jébbal ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ saaliw loo nekkoon itam koo xam ni ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ku ko wóolu woon la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñaare bu masaa soxla kii di sëriñ mor ab saloo sëriñ saaliw lay yónni ngir mu dem wooli ko waajuram woow mu bokkoon ci tuutànk yi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi woon xel lool moom sëriñ saaliw mi yéeme googu mu yéeme woon moom sëriñ saaliw loo ibnu sëriñ mor ab saloo tax na itam mu Mbàkke wala ci jataay yu ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim teewee ndax bi ñuy teg xeeru jumaa ji ci atum 1918 muy jumaay njaareem jooju Sëriñ Saaliw Lo fekke na ko ci atum 1924 bi Seex Isaa Jenn di jébbali ji liggéey yëpp jumaay njaareem ji te àndoon ak mag ñim àndaloon ci liggéey bi muy Sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke Sëriñ Moor Absa Lo Sëriñ Balla Faali Jeng ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi Sëriñ Saaliw Lo itam bokkoon na ci tuut tànk yi fekkee woon jataay boobu néeg bi ku baax ki génnee àdduna ci dëkk bu sell boobu di njaareem di béytal maxaama seex isaa jenn mooy ki ko defar keroog bi muy jébbali ji caabi ji ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim taawam di sëriñ baara jenn ak sëriñ saaliw loo la boole yónni ñu dem jox ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim caabi néeg boobu di béytal maxaama ci néeg boobu la ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim génnee àdduna ci njaareem ba tey ci taw feexi sëriñ saaliw loo xam ngeen ne laataa muy Xaadim laaj na waajuram lu tolloog ñaari yoon ana jëmm ji di sëriñ saaliw loo te booba feeñagul jamono ca ñetteelu yoon ba lay doog a feeñ jamono sëriñ tuubaa seexul xaddim wax waajuram mu tudde ko saaliwu loo loola tax na mag ñépp bàyyi woon ko xel moom jëmm jooju di sëriñ saaliw loo rawatina ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim ba tax na itam ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim tafoon na ko ci boppam te booba itam sëriñ saaliw loo tu tànk la taf googee ko ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim tafoon ci boppam taxoon na mag ñi itam bàyyi woon ko xel sëriñ saaliw loo ci atum 1924 waajuram sëriñ moor absa loo ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim woolu na ko ci njaareem jox ko am ndénkaan di ko wax ne moor absa téel ma ndénkaan lii bis nag dana ñëw ma laaj la ko waaye bis bu ma la koy laaj du la fi fekk fekk man mii duma fi fekk waaye nag na nga xool kenn ku la doy nga dénk ko ndénkaan li ka nga koy jox itam na am ful lëy bum ko jox ku dut boroom ci la sëriñ Mor Absa Lo xalaat xalaat daa di jël doomam ji di sëriñ Saaliw Lo jort ne mën naa yor ndénkaan li mu ñëw ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di ko wax ne Saaliw sama moom de laa bëgg a jox ndénkaan li ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di ko xamal ne suñ boroom xamal na ma ne Saaliw Lo mën na koo yor waaye nag na ko xamal ne na am ful bum ko jox ku dut boroom ndénkaan ndénkaan loolu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nekk na fekk sëriñ Mor Absa ci atum 1924 li kenn waxu ci kenn laaju ko sëriñ Mor Absa Lo yor na ndénkaan li ci atum 1924 ba atum 1943 ndénkaan li itam kenn laaju ko kenn waxu ci ci atum 1943 la fi sëriñ Mor Absa bàyyi ko sëriñ Saaliyu Lo wéy yor ndénkaan li nag di ko sàmm Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke mi njëkk a wuutu Xaadim toog na xalifa ci atum 1957 ba atum 1945 ndénkaan li kenn laaju ko kenn waxu ci ma cheikh mamadul faadal mbàkke mi nekk ñaareelu xalifa xaadim rasuul toog na xalifa ci atum 1945 ba atum 1968 ndénkaan li kenn waxu ci kenn laaju ko ba tey rek ndénkaan li nekk ci loxoy sëriñ saaliyu loo ndax kat ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim waxoon na ko ne na am fullëy nag bu mu ko jox ku dut boroom ci atum 1968 nag la fi cheikh mamadul faadal mbàkke bàyyi ko cheikh abdul ahad mbàkke ñëw nekk ñetteelu xalifa xaadim rasuul ca fanam yu njëkk ya di fukki fan yaag juróom ci bi mu toogee xalifa xaadim rasuul sol naw dàllam ñëw njaareem nuyoo si njaareem ñëw seet si sëriñ saaliw loo waxtaan ba dem waaye laajul ndénkaan la ca ñaareelu yoonam nag la ànd ak nijaayam ju ñuy wax sëriñ mbàkke jaxate te nekkoon foofu ci njaareem bisub kero sax foofu la cheikh abdoulahad mbàkke yendo ba ngoon mu doog a ñëw jàll si ci kër sëriñ saaliw laaj ko nag ndénkaan la waaye kii di sëriñ saaliw loo da koo tànqamlu di ko xamal ne daal yurumam ndénkaan te dénkoo ma dara ca ñetteelu yoonu cheikh abdul ahad mbàkke ci la ñëw nag ci kër googu di kër sëriñ saaliw loo di kër sëriñ moor absa loo di ko xamal ne ndénkaan la laay jël si sëriñ saaliw loo di ko xamal ne yoromam ndénkaan te dénkooma di ko xamal ne soo ma joxul ndénkaan li ma woo ka la ko joxoon mu laaj la ko nga jox ma ko sëriñ saaliw loo di ko laaj kooka kan la mu di ko wax ne ko ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ci la sëriñ saaliw nag doog a jóg jox ko ndénkaan la ndénkaan loolu sax keroog sëriñ saaliw loo cheikh tegoon sa bët loo baax baax kenn mënu laa tee dem sawara xanaa nga nekk rek koo xam ni ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo ko defar wala mu may ko ak jagle waaye ku dul kooku boo ci tegoon sa bët kenn mënu laa tee dem sawara sëriñ Saaliyu loo di xamal kii di Cheikh Abdoul Ahad Mbacke baa man bokkuma ci ñooña Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di ko wax ne ko déedéet yow kay ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo la defal ak jagle ndénkaan loolu sëriñ Saaliyu Lo yor na ko ci diirum ñeent fukki at ak ñeent ndax soo xalaatee 1924 ba 1968 ñeen fukki at ak ñeent la ndénkaan li ci la ko sëriñ saaliyu loo denc te ci diirum ñeen fukki at yooyu ku sëriñ tuubaa seexul xaddiim doo sëriñ moor absa loo ak sëriñ saaliyu loo xamoo woon ndénkaan li xanaa cheikh abdou lahad mbàkke mi ko jël si te moomoon ko di ñeenteelu doomu aadama bi ginnaaw bi na kii di cheikh abdou lahad mbàkke bind na ñaari yoon lettre kii di sëriñ saaliyu loo di ko ca sant ak di ko ci gërëm benn lettre bi ma ko cay ñaanal di ko ca sant ka gërëm dem na sax ba di Thio Saliou Lo ku dul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim defaluma ko Cheikh Abdou Lahad Mbàkke dem na bay giñ ca lettre ba ngir di ñaanal kii di sëriñ Saliou loo ñaareelu lettre bu Cheikh Abdou Lahad Mbàkke bindoon kii di sëriñ Saliou Lo ngir di ko sant ak di ko ci gërëm ñaareelu lettre ba nag ma ngi koy xamal ne lettre bii ma la bind man binduma ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo ma wax ma lay bind yow Saliou Lo lettre bii moom itam ca wax ca Cheikh Abdou da nga xam ne cheikh abdou lahad moo ko bind ndax ab tampon manga ca akub signaturam waaye nag yéeme gu lettre ya yéeme ndax cheikh abdou lahad mbàkke dem na sax bay dogu ca lettre ya lool rek moom moo tax ñu leen di jéggalu ngir bañ leen koo jàngal waaye lettre ya man abdourahman mi teg naa ci sama bët yéeme googu mu yéeme woon moom sëriñ saaliw loo ba tax na laataa muy feeñ jamono ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim laaj na ko ñaari yoon waajuram ca ñetteel ba mu doog a feeñ jamono ba ndénkaan loolu ku waajuram di sëriñ Mor Absa Lo sëriñ Saliou la waxoon mu denc ko mu am taw féexi lu bare bari ci njaareem te sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nekk nekk fa te booba itam du mag mu nekk tuut tànk ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim loola itam taxoon na waajuram bàyyi ko xel bu baaxa baax bu tuddi ko ñaari yoon doom ndax sëriñ moor sa loo mi meññi sëriñ saaliw loo tudde na ñaari yoon doom sëriñ saaliw loo mi doomam mu tudde ko ku ñuy wax sëriñ saaliw loo moom soxna assu caam ginnaaw bi lu ko tuddewaat maneen sëriñ saaliw loo muy sëriñ saaliw loo xaddi ñas sëriñ saaliw loo xaddi ñas sax moo toog jamono ji xalifab sëriñ moor absa loo lañ kenn bàyyi woon xel doomam jooju di sëriñ saaliw loo ba tax na ñaare lu baree bari daana ko ko defloo ci njaareem wax naa leen na keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddim liggéeyloo seex isaa jën néeg boobu di baytil maqaama te néeg boobu ci la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim génnee àdduna ngir seex isaa jenn bëgg gum bëggoon kii di doomam sëriñ baara jenn ak sëriñ saaliw loo jariñu ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moom moo tax keroog bi muy jébbale ji caabi ji ñoom ñaar ñooñu la ko joxoon ngir ñu jébbal ko ku baax ki tubaa seexul kii di sëriñ baara jenn la ndax ñoom ñaar ñoo nekkandoo ay tuut tànk ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba tax na itam sëriñ saaliwu loo ku mii noon ëttub seex isaa jenn la ba tax na taawam bu jigéen bii di soxna say nabu loo soxna seex isaa jenn la ko tudde muy ku ñuy wax soxna say ndànd soxna seex isaa jenn la ci dëkk boobu di ndànd la woon soxna say la tuddoon ñu ko daa wax say ndànd soxna say moomu nag lu tudde taawam bii di soxna say nabu loo moo tax soxna say nabu loo bintu sëriñ soxna say ndànd lañ wax kon bàjjen yàlla na la yàlla teg loxo te sàmm loola itam taxoon na mag ñi nekkoon nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim defoon nañ doom kii di sëriñ saaliw ba daanañ ko bàyyi xel bu baax a baax cheikh mamadul mustapha mbàkke wala réew loo la woon cheikh mohamadul faadal mbàkke moom itam wala réew sëriñ saaliw loo la woon ndax ci atum 1924 bi sëriñ tubaa seexul xadim joxe ndigalul màggalug fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar gi te sëriñ tubaa seexul xadim waxoon mag ñi ñu fonkle ko bis boobu di fukki fan safar sëriñ saaliw loo moom daan na ko màggal ndax bisub keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddim di joxe ndigal la ma nga fa woon loola itam tax na bis boobu itam daan ko màggal ci njaaréem bi seex mamadul faadal mbàkke toogee xalifa ci atum 1945 ba woote lii di màggalu tuubaa gi sàkk woon na ci sëriñ saaliw loo nag mu bàyyi bis boobu muy màggal ci njaaréem te ñëw ci tuubaa di ko fi màggal se ab lettre la ko bindoon te di ko ca sàkku ca loola bi sëriñ saaliw loo ñëwee di màggal si ci màggaluk 18 safar yooyu ngir ndigalul seex mamadul faadal mbàkke mbàkke kër cheikh mamadul faadal mbàkke gi tolloo woon na kër sëñ murtada mbàkke faliilu kër googu la ko cheikh mamadul faadal mbàkke joxoon te di ko wax ne dee fi dal sëriñ saaliw loo itam ci kër googu la daa màggale fukki fa ak juróom-ñett ci weeru safar ci ndigalul cheikh mamadul faadal mbàkke màggal na ko foofu itam ay ati ati at ginnaaw bi nag la ku ñuy wax naar jaañ tabax kër ci dëkk bu sell bi di tuubaa naar jaañ nag taali bépp sëriñ mbay saar la woon moo waxoon sëriñ saaliw loo ne ko boo xam ne ni tabax naa sama kër gi ba noppi man nga fee ñëw nag di fi màggale tuxoo ci kër cheikh mamadul faadal gi nekkoon ci wetu kër cheikh murtada mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke dem ci kër naar jaañ googu di fa màggale ba ci atum 1981 ba tey sëriñ saaliwu loo cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko joxoon lii di jumaay njaareem ji ngir mu di ko toppatoo ci atum 1948 ba atum 1984 sëriñ saaliwu loo mooy sàmm biir jumaay njaareem ji ci ndigalul cheikh mamadul faadal mbàkke ci atum 1946 ba atum 1984 ci lépp lu ci war ci wàllu cet cheikh abdou abdul laxat mbàkke moom wul réew sëriñ saaliwu loo la woon ba tax na daana ñëw njaareem di ko seet si lu baree bari daana ko woolu itam ci dëkk bu sell boobu itam di tuubaa ngir boole gu leen ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim boole ci ndénkaan ak ganeen kóllëre gu ñu séq sëriñ saaliwu loo nag toog na xalifab sëriñ mor absa loo ci atum 1964 ba atum 1984 mu wuutu magam ja nag sëriñ moodu faaloo mi nekkoon taawub sëriñ moor absa loo sëriñ abdu yaasin loo 1984 doomu soxna xadi jóob ja ak kii di sëriñ moor absa loo mi ngi génn àdduna bisub ajjuma ñaari fan ci weer wi di weeru tamxarit ci atum 1405 ci gàddaay gi ajjuma ñaari fan yi tamxarit ci atum 1405 ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 28 septembre 1984 vendredi 28 septembre 1984 ñu yëgal ko ki nekkoon xalifab ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di cheikh abdul ahad mbàkke cheikh abdul ahad mbàkke moo jóge ci dëkk bu seel hôpital bi di Touba ñëw ba njaareem waajal kii di sëriñ saaliw loo jullee ko gunge ko ba ci armeer yi ñu jébbal ko boroomam mu seede ci moom seede ju am solo sëriñ saaliw loo ñaari doom rek lañu fi bàyyil muy ku ñuy wax soxna say ndànd loo ñu gën koo xam ci soxna say nabu loo bintu sëriñ saaliw ak ku ñuy wax sëriñ abdu loo ibnu sëriñ saaliw loo sëriñ abdu loo nag moo nekk xalifab sëriñ saaliw ci atum 1984 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñu boroom yàggal ko fi te wéral ay cëram te ko ci toogaayu sëriñ saaliw loo mook magam ji di soxna say ndànd loo ak mbooleem ñu ñu séqal sëriñ saaliw loo suñ boroom am na ko mën na ko yàlla na ko def sëriñ saaliw loo nag amul nag bés bu ñu tuddee nag lii di ak màggal waaye bés bi mu génnee àdduna saa bu delsiwaatee njaboot gi danañ ko ci wàcceel kaamilu alxuraan ngir ñaana laale ko fa mu tëdd suñu boroom yërëm ko wanale koog waajuram wa sëriñ moor ab sa loo ak ko baax ki sëriñ tuuba seexul xadiim ndax moom sëriñ saaliw ak njabootam lu ma waaye di defal sama ginnaaw nang ma ko defal ci bisub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim muy fukki fan ak juróom ñett nag ci weeru safar ndax bis boobu kat moom laa dégg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wax ne nañ koy màggal te bis boobu itam lépp lu ma am ca laa ko soxla lépp lu may def itam ci laa koy def moo tax itam bis boobu daana ko màggal ci njaareem mu nekkoon màggal gu mag laata cheikh mamadul faadal mbàkke di ko wax ne indil bis boobu ci dëkk bu sell bi di tuubaa bi ko cheikh mamadul faadal mbàkke waxee sax mu indi ko ci tuubaa këram gi woon na kër sëñ Moxtada Mbàkke Fallilu foofu la sëriñ Saaliw daa jógee njaareem ñëw daa fi dal ngir di màggal si màggaluk fukki fan ak juróom ñett bi weeru safar bi lettre la ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bindoon ngir jox ko ci ndigal ngir mu koy màggale ci dëkk bu sell bi di Tuuba lool itam moom moo taxoon sëriñ Saaliw Lo lépp lu masaa am ci màggal ci bis boobu la ko daa def loolu itam moo taxoon mu sàkk woon ci njabootam lépp luñ koy defal ñu defal ko ko ci bis boobu di bisu fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar ndax bis boobu dong nag la am ba loola itam tax na saa bu màggalug tuubaa ñëwee itam ak njabootam fàttali waale waale ko ca bis booba ngir ñaanal ko ci ndax loolu mooy ndigal lim leen fi bàyyee ñuy ñaan ci doomu sëriñ Mor Absa ba te seexul xaddiim laaj ko ñaari yoon laata muy feeñ jamono waajuram sëriñ Mor Absa Lo yal ñu ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem te wanale ko waajuróom waak sëriñam ba xaadim rasuul amiin ba xaadim rasuul